mooy daw song la jàpp la duma la daan la sa tag je cogne et je gagne avec la manière. loolu fi jàmbur la bàyyi loolu dégg nga wut see fi bopp. maay diriger maay def lépp lu fay xew maa koy def. loo bëgg. maay bëre maay xeex maay jàpp maay daan incha allah. non moom attanu ma ba weer. yow Garga 2 bis boo ma caxabalee boobu ngay ñàkk say tànk dootoo bëreeti. beek ngay yor foofu laa yem waaw yow ca waxal bi ngay daw te moom laa lay daane incha allah maama Lamine le 22 mai. bu leen fàtte nag bu ngeen ñëw andaal leen képp yi ak ligne yi. Garga dama kaa war a fóot ba mu set. te bu ma ko weñee dama leen ko war a jox ngeen weer foofu laa yem wa salaam. maama Lamine nee nga danga may weer soo ma weeree dinaa la gome paase la. le seen affiche point com lay daw na ko gaa yëpp xaar wa salaam. en direct seen affiche point com di la man sax moom. moom dafa bokk ci làmb am am am dag-dag bu ndaw toog lu yàgg bëriwul war a ñëwaat ci làmb te moom dafa war a perse comme tout le man pour man Garga 2 dafa war a lekk xaalis comme tout le monde combat la boo xamante nii bëgg na ko may bëgg naa combat bi. ñun ñu am si yaakaar man ma am ci wàll bu rëy kon Mama Lamine lu mu liggéey da ngay xeeb te ñun dañuy dem ci guerre boo xamante ne ñun lu ñu am ak lu ñu yor duñ ko wax waaw mais li mu la mën a xamal mooy incha allahu rabi ndam bu set wicc lay am. père Jules dama ko fekk fee mu ne Ama bu ragalee da koy rey. <laughs> waaw loolu xam nga ne deret ji daw ci Souleymane mooy daw ci Ama Baldé itam te xam nga ne Souleymane ragalul <laughs> kon nga xam ne warta ragal gaynde doomi gaynde gaynde rek la jur loolu leer na moo tax ma wax la loolu dalaa làkk rek xamoo hmm. waaye maa lay leera ba mu leer gaynde gaynde rek lay jur kuy seen baay Jules Balde ak Ama. borom Ginte. kooku 187 combats la ba xam ne cent et quelques combats. 4 defet 4 kese la. ñi ci des ñëpp da leen def da jàpp ñu ne déedéet waaye mu yëkkati loo xam ne defaru leen ñu defaru mu bitër ñu sànni fële. est leen woon doole. non da loolu da leen gën a gën a xam maîtriser làmb rek xam nga làmb am na fooy taxaw ci mbër doo xeex mbër ma du xeex am na fooy jàpp ci mbër mbër ma du bëre. yooyu nag ay xalaati xalaati làmb ay ndoxtu la rek. ay ndoxtu la buñ ko jàngut doo ko mën. ok léegi fi may jeexal ak yow combat taxaw na mu combat bu rëy ñaari xale ñaari espoir ñoo xamante ne tey roi des arènes mën na génne ci ñoom muy rëg-rëg ak Sa Thiès yëg nga information bi bi nga déggee combat bi taxaw na noo ko dundee. waaw seetaan nañ leen comme seen signature ah ñoom ñaar ñëpp wax nañu mm-hmm. euh, ma jàngat leen ni nag ci xëy na am na lu ma jàngat ci ñoom wax ko teel na léegi mais. Euh, combat du siècle la combat jànq boo gisee combat jànq gars yi di ko wër loolu te combat jànq bu ko gars yi bëggee itam loolu li mel nii day tax ñaari xale yoo xam ne yi dañoo jàpp ne war nañoo daje yenn saa yi ñoo xam ne dañuy wax ne teel la ñoo daje. Mm. ndax ñaar ku ci daan mën ngaa toogloo sa morom mais ñoom ñaar ku ci daan itam kenn ki mën naa bañ toog parce que dañoo toll ci kenn si buntu làmb mm. te ay xale yoo xam ne yi mën nañoo bëri ñeneen ak mm. ku mel ni tey am nay mbër yoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw dañu neex la ku mel ni booy sarko ku mel ni franc ku mel ni euh, ñoom ñoom moom ñoom Siteu ñi mel noonu ñoo ñii bëri war ak ñoom parce que xam nga ne ku mel ni Sa Thiès daan na Siteu tey ji am na nu muy demee tey Siteu mën naa neex mu ne ko kaay ma may revanche bu daanate Siteu wala Siteu daan ko dañuy def un kon mën naa bañ a toog ku mel ni rëg-rëg itam daan na ki nga xam ne ku muy guy ji mais làmbam kenn ku nekk pour gis rëg-rëg di nga xam ne am na kattan te mën na bëre. te daanoogul de. ah si. ah si. si mooy lan. ah non yooyu itam loolu xamu leen ko loolu day sori ci yéen war leen ko xam. noo lu sore ci moom rek kay kar am. non bu wax loolu. arène laa wax. arène. Ah. laaj ko Serigne Modou Niang. yow kay laa ko laaj yow mi ko wax. exactement. ñaata doon la daal benn mbër bu ñuy wax Clinton daan na ko ca grand fële ca euh, euh, dëkk yu. Euh, Ngor waaw. Clinton daan na ko Clinton bi la ko bàyyi ci seera. loolu ma lay laaj ah. vérifier la. Clinton bu waalo. vérifier loolu après nga ñëw. maa lay wax lu kenn du wax. mais pourtant ñun dañuy gis ne deux cent verdict lañ koy defal. waaw mais loolu la loolu loolu dara. waaye nag digganteem ak Sa Thiès gars yu bari nee nañ Sa Thiès am na combat bu dëgg dëgg dëgg dëgg. waaw Sa Thiès am na combat mais combat la boo xam ne bii ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci fonk combat bi yàlla mën naa dogal nga am ci li nga bëgg boo ñëwee ne maa man mën ngaa ñàkk loo bëggoo bëggoon a am te doo ko am. boo ñëwee itam wan ne maa maa maa gën jekk wala maa la gaa yi gën a seetaan wala nangam ma nangam perte nga ku ci perte repère wala nga perte ci lu ndoxtu tuuti rek mën nga ñàkk salaam. mais est-ce que Reug Reug gënul am combat. ah waaw mais xam nga Reug Reug dafa koo xam ne kii nag gaa yi dañ ko séentu ci euh, actuellement nii muy fek si gaa yi. waaw da fekk si gaa ah. yi ndax parce que euh, li mu wane ci làmbi simple euh, xëy na wane ko ci bëri dóor bi ci ci wàllu bëre. ndax xam nga suñu roi de roi c'est euh, champion d'Afrique kere bi muy daan suñu gars yi fii amul kenn ku ko tëral daa daan ñëpp kenn ku ne dan daan la jël ba ko neex di ko ci fii si bu baax keroog ñun ñëpp la bëggal. li mu wax ni moo dàq bëri Sa Thiès d'accord nga. waaw day day day day day day day day nekk nag loo xam ne lii euh, mën na nekk parce que xam nga bëre bu bu yéex ak bëre bu gaaw. ñoom ñaar dañ ko kenn ku nekk ko am ne koo xam ne kii day liir bëre mu ko mel ni rek rek day liir bëre waaw mais kii dafa am bëre bu gaaw mm-hmm. boo xam ne bii ñoom itam dañu ko donn ci seen sang seen deret ci jàppante bëre ak yow waaw loolu il faut ñu xam loolu bu fekkee ne bu bëre bi gaaw na à cent pour cent euh, ku mel ni Sa Thiès mën na daan mais bu yéexee itam ñu jàppante dégluwante calcul ku mel ni rek mën naa daan bu ñu xeexee teg ci yoon ku ci lupp la sa morom ku wala nga xooloo fu ngay door wala nga ragal ñu war a jël ku di reesal la ka jéem a maas la yooyu. Hmm. da nga ñàkk salaam. xoolal combat bi ni nga ko décortiquer ni ko tege ci yoon te bu ñu waxee Ama Modou Lo doo ko rep doo ko doo ko doo ko teg ko ci yoon. waaw parce que. Euh, da ngay jàpp ne moo amul benn sens. ñu ñaan yàlla bu ci bis ba bu ñu séntu fetal ñu ñu fit. Ah. bu ñu séntu ñu fetal. ana Amdi Moustapha Tapha Tine. waaw ah, euh, gaynde Bawol gi. bi ngeen koy yoxasoo ba lek da ngeen koy daw de. waaw non ñun duñu daw kenn. da ngeen koy daw. moom xam na ne duñu daw kenn kooku xam na ne moom dañu bëriwaat. moo ama. dañuy làmbaat dañu bëriwaat. Lac de Guiers 2. bàyyi ma fi kenn Ama Baldé ki ma bàyyi wax ne du ñu bëri moom mooy waa Kër Double Less ak waa. waa Pikine waa Pikine. Casamance waxul Casamance de. waa Kër Double Less ak waa Pikine. Casamance gan la. gën a ñoom la dëgg. non de Duba les daal la ma wax ak waa Pikine. Hmm. waaw sunu kër gi mag gi fii kër Fodé Doussou baa ngi nii à zéro mètre. ko. waaw Badara ngi foofu noonu. Hmm. Badara Balde di boo xam ne bii yenn yi sax bu ndekkee fii la ko reesale si. Hmm. maa la wax lii. kon daal nee leen neex def. non li wuute wóor mooy kattanu yàlla moom. ñaa ngi ñaan yàlla suñu borom tabaaraka taala lii nga xam ne moom la ñu jublu nii ci combat bii nga jëm. Fouta production muy muy nekk combat bu rëy Fouta production. waaw ah. parce que su la xam naa ne du suñu rakk du suñu xarit du koo xam ne kii day doog dugg ci làmb ñaan na ko nag suñu borom tabaaraka taala moom itam mu yeggale ci kàttanu yàlla. gaa yi itam jàppale ko sponsor yi ñëw jàppale ko. ñi nga xam ne itam ñoo ŋànk làmb jàppale ko muy au de CNG mbër yi itam ñu yembaleel li nga xam ne bi mooy liggéey bi ci ñoom parce que ay xale la ñoo xam ne am nañ jom am ñu ci détermination dajale leen seeni i déem ak seen i Dakar ñëw ñëw ci làmb monde làmb ko war a jàppale kon xale yii ku leen jàppale jàppale nga làmb ku leen jàppale bëgg nga làmb ku leen jàppale jàppale nga ma mbër te mbër nag mooy lamb pa amateur mooy làmb bëgg bi ndax làmb attention ñu ngi ci biir géew bi yëpp dañ leen a fay même les journalistes dañ leen di fay géwél yi tëgg dañ leen di fay mbër yi bëre dañ leen di fay seeta seet mais ciment d'asement kon ñu mel noonu nag bu fekkee ne dañoo dem ba gis ku taxawal lu mel noonu indi fi ay mbooloo dañ war a jàppale ci kàttu nañ jaar yoon kontaan naa ci yow di ñaari xale yoo xam ne yi nag muy Pokola ak euh, Dame Suguer numéro de ñoom itam ñu ñëw fournir seen i contrat def li nga xam ne lii moo war a def mooy mobiliser indi ñëw ci làmb ji indi mbooloo mu takk mu sax bëre bëre bu neex am jom ak fula ak fayda bañuy def ni gars yi def carré fan ñett minute nga ñëw ne ma damaa gaañu fii wala sama tànk yi mais wala kii yooyu tappale yooyu moom nañ ko bàyyi. te waa dañoo gaañu. waa parce que dañoo tàmm loolu léegi la ñuy def juróomi xam nga ñetti mbër nga ko jóg rek na damaa gaañu loolu moom war nañoo sangu ci géej géej gaa ngi foofu à zéro mètre dañuy sangu ji foofu ah. waaw léegi géej sumbu jun ko xam nga sumbu jun xaw ma parcelle gi waaw waaw te dégg naa da ngeen entraîné foofu sax yéen. nañu bu ñu sore ci biir de ay kàmbalaam ci biir da ngay suux jàll fee mu tundee nga jaaral duggaat rek. noonu ay njool dañuy këf rek dañuy daw ci tànk ci kii di sangu <laughs> ay njool lañ ñoom. <laughs> waaw mais géej xamul njool day wane <laughs> kuy wane xamul njool. daa mel ni géej ngeen de. waaw géej ñu wër. gauche droite. géeju géej gi nii géeju Pikine da ngi nekk jaaraay. ah géeju de. ah daa non loolu nga xam rek ñii fi la bari na de. maratuba boo xam ne fi la des boo xam ne bii daa sangu génn rek des ci biir waaw xabar nga koo xam sax mu doon champion séeréer bu boo xam ne bi tubarkàlla. kan la. Euh, Yam Sarr. ndeysaan. ndeysaan. koo xam ne kii moo mënul ci séeréer si mais gis nga ko yàlla daa dogal mu entraîné rek ba génn sangu daanu. waaw muy koo xam ne kii métti nañu waa Pikine ñëpp di ci tuubal nag yàlla sax. ndax itam yàlla def dara ngay nga ko mettitlu waaye daal bu ñu sañoon wax dëgg yàlla mu yàgg fi ba fekk lu baree baree bari ndax suñu yéene rek la woon ci moom. kon le 17 juillet rendez-vous ci kàttanu yàlla ngeen ñëpp ñëw ànd ak waa production mii nga xam ne bi Fouta ànd ak ñoom ñëw civilisé ànd amateurs yi ñëw ci jàmm ak salaam seetaan combat bu neex entre pak Pac Pacola ak Dame Siguen numéro 2 di ñaan yàlla nag Pacola daan ko jël bu ma neex. bëgguma sax mu dóor ko mu daan damaa bëgg ñu xeex xeex bu neex mu daan ko jël bu ma neex ñu ñibbi. jërëjëf merci beaucoup. damay daw song la jàpp la duma la daan la. sa tag je cogne et je gagne avec la manière. loolu yëfi jàmbur la bàyyi loolu dégg nga wut see fi bopp. maay diriger maay def lépp lu fay xew maa koy def. loo bëgg. may bëre may xeex maay jàpp maay daan incha allah. non moom attanu ma ba weer. yow Garga 2 bis boo ma caxabalee boobu ngay ñàkk say tànk dootoo bëreeti. beeka ngay yor foofu laa yem ak yow. waaw yow ca waxal bi ngay daw te moom laa lay daane incha allah maama Lamine le 22 mai. bu leen fàtte nag bu ngeen ñëw ndaal leen képp yi ak ligne yi. Garga 2 dama kaa war a fóot ba mu set. te bu ma ko weñee dama leen ko war a jox ngeen weer foofu laa yem wa salaam. maama Lamine nee nga danga may weer soo ma weeree dinaa la gome paase la. le 22 seen affiche point com lay daw na ko gaa yëpp xaar wa salaam. en direct seen affiche point com di wax fan si yëpp nan dem si affiche point com jënd ko ti seetaan ko foofu. waxuma la man sax moom. moom dafa bokk ci làmb am am am dag-dag bu ndaw toog lu yàgg bëriwul war a ñëwaat ci làmb te moom dafa war a percer comme tout le man pour man Garga 2 dafa war a lekk xaalis comme tout le monde combat la boo xamante nii bëgg na ko may bëgg naa combat bi. ñun am si yaakaar man ma am ci wàll bu rëy kon Mama mi lu mu liggéey da ngay xeeb te ñun dañuy dem ci ger boo xamante ne ñun lu ñu am ak lu ñu yor duñ ko wax waaw mais li mu la mën a xamal mooy incha allahu rabi ndam bu set wicc lay am.